asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen présenté le professeur kër Gueye premier président du conseil départemental de Kër Massar donc ku nekk nit ku oyof ku baax ku yaru ku tabe ku am diine donc juddoo Pikine rampe foofu defee foofu lépp tuxu si yëmbal laata moo ñëw fii ci Kër Massar en 2008 donc yëggali li nga xamante ne nii moom mooy mission ci cadre humanité fii ci Kër Massar ñu bëri nag ràññeewuñu ko bu baax a baax ndax yàlla ak modestie bi nekk ci moom boo bëggee def trait de caractère am modestie ngay tàmbalee. nit ku oyof ku dal ku baax ku xam nit ku am yëg-yëg nekk un professeur de mathématiques ci lycée. wala le CM keur Massar village comme nous nous ko gëna a ñu gën en 2017 bi nga xamante ni parti de l'unité et du rassemblement ci lañ ko sen président du parti Serigne Moustapha yëkëti Watt. donc professeur Babacar Gueye nekkoon candidat ci législative en 2017 donc battre campagne génn comme deuxième fi ci département wala bok autant temps commune de keur Massar gannaaw lool en 2019 itam. Bataille, mon moom mu ànd continuer ànd PUR fii ci Kermassar, Massar de campagne ci présidentielle 2019 ndax yàlla moom moo nekk moom moo le coordinateur de parti de l'unité et du rassemblement de Kër Massar biñ ko defee département itam mu ñëwaat encore le coordinateur du PUR le professeur Babacar Gueye en 2021 coalition de di yeewi askan wi coalition bi tànn ko jiital ko mu le coordinateur de yeewi askan wi département de Keur Massar ba ci euh, cadre politique bi biñ tolo ci investiture yi itam wa coalition yeewi askan wi investir le professeur Babacar Gueye comme candidat de yeewi askan wi ci département de Keur Massar donc mën nañ wax Euh, en ce qui concerne la politique kooku moom mooy Babacar Gueye